mbokki diaspora bi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam euh, xam naa tey euh, dañoo bëgg ñëw encore waxtaan ci euh, xew-xew yi nga xam ne moo xew senegal te yàgg faa xew nag maanaam tey dañoo bëgg a ñëw indi suñ xalaat ci Sénégal xam naa ñu baree bari xaaroon nañ ma ci ba am na ñu ma jot woo sax am ñu ma jot a yónnee ay ay ay vidéo ci li xew ci Thiès ci kër yooyu ñuy toj kon kenn ku nekk dib sénégalais am nga ci part de responsabilité ndax Sénégal maanaam ña nekk di gouverner Sénégalais yi ñoo leen jox pouvoir suufu Sénégal appartient à tous les Sénégalais Sénégalais yépp ñoo ko moom donte nag lu mu mën a doon dafa am war a am organisation même organisation manque d'organisation mu nga tàmbalee ci gouvernement bi ndax ndax euh, Sénégal yàgg naa leen ko wax Sénégal ni muy doxe dum réew loo xam ni idée kenn nit idée kenn nit lay doxe bàyyi leen xel ci li ma li ma leen di wax amul kenn ku ñemee taxaw fee muy ab ab directeur wala muy ministre wax wax ba ba daaneel te daaneel lu ci ne li gouvernement li li Macky bëgg ci Sénégal mais nag moom amul bëgg-bëgg moom amul bëgg-bëgg mais bëgg-bëggu kenn nit mën naa yor am réew mais la taxoon ñuy fal ay ay ministre ak député ak yooyu bëggoon kenn ku nekk indi sa xel ak sa idée ak sa contribution moo taxoon waaye am réew bu fekkente ne lay dox lépp. kenn nit la koy doxal mais loolu loolu dara mënut a dox wala na muy doxee du du du du arranger population Sénégal sénégalais yi bis bu set ma wax leen ko yéen yéen a gën a ñàkk sens ci li yàlla bind ci kaw suuf yéen damaa bëgg ngeen xool yéen fan la leen seenum réew féete yéen fan la leen seenum réew féete bokk yi damaa bëggoon ngeen xam ne am réew lan lay jariñ citoyen citoyen réew ma mooy fu bëtam xonq mu gis réew ma fu bëtam xonq ak moo gis réew ma àgg na ba ci àgg na ba ci tey citoyen sénégalais bu nekk ci même même Australie même réew fu gën a sori Australie bu fa nekkee dem ba nekk ci jafe-jafe daa war a dem ca ambassade Sénégal ba nekk foofu yóbbu fa passeport am ak carte d'identité ñu xam ne sénégalais la ñu sàkkal ko pexe daggal ko bii mu ñibbi Sénégal mais loolu loolu loolu xam ngeen ne Sénégal dafa àgg ba war day tukki fii dafa am benn waay boo xam ne yàggul dara mu ñëw fii demoon Amérique fii la dëkk ci dëkk xam nga li ñuy arme robbery arme robbery mooy mooy euh, ñuy cambré ay kër fekk ay nit olome leen jël seen xaalis fa mu daloon leen jël seen xaalis pa carte banque sax yoru ko carte banque sax yoru ko dara lépp lam léppam lañ yóbbu xanaa passeport am dong lañ ko bàyyee ba ma ko nettalee morning morning how are you I'm fine thanks how are you I'm okay ba ma ko nettalee ma nekk waaye yow noo def ba ñëw mu ne ma non I don't have any problem about the Quebec Quebec in South Africa I went to the embassy when I went to the embassy I told them I have been robbed in the in, in America I want to go back to my country within 48 hours they will organize for me the ticket so I will fly fly down here to South Africa ha dégg leen loolu mu eh, def ma ne ko noo def mu ne ma mu ne ma aw ma benn problème pour dellu si ca ambassade ba laa dem ne leen dañ maa dañ maa rob fii ci Amérique yoratuma dara sans passeport bi dong laa yor nee na dañ ko 48 heures 48 heures nee na ci lañ ko lijjanti lépp diggante South Africa ñu jox ko ak ak gouvernement ñu daa koy daggal biyam mu ñibbisi yéen kañ kañ la senegal kañ lay féete foofu citoyen sénégalais Sénégal kañ lay féete foofu citoyen sénégalais Sénégal nag la fa xew àdduna ji tukki la àdduna ji tukki la ca baadoolee ku ko nangu moom la ku ko nangut moom la parce que am réew bu ñu demee ba ba ma ne li may wax man danaa ko argumenté mooy ci yontu yàlla yontu yàlla aadama ba tey jii may wax ak yéen boroom xam-xam yi heure buñ faree ak buur yi tukki tel àdduna la ca baadoolee parce que ñaar ñooñu ñoo far buur yi buur buur am xelam baaxut ndax nguur dafa neex bu ca a bu ca boolee am soutien soutien borom xam-xam yéen musiba àdduna lu tukki la àdduna bu tukkee ngoog ma ne borom xam-xam bu baadoole yi la war a faral citoyen yi la war a faral réew mi la war a faral waaye bu ñu demee ba ba borom xam-xam ya ak kilimay terexee di faral di faral gouvernement bi billaahi borom boobu booy boo baadoole yi tiit kon lañ daan wax sant ba léegi naan euh, cere cere cere euh, buur a rongoñu baadoole moo koy siin kon tey lay gën a garaaw tey lay gën a metti ma ne ma ne la xew mbul soxna si ñu génne njaago bii ñu génne mu ne ay mbaam la doon jaay ay mbaamam la doon yar di ko jaay ba ba ndeysaan tabax ca lam ca tabax ñu toj ko nga xam ne ay wolofam sax leerut kon loolu ñëpp am nañ ci part de responsabilité ak sëñ bi génne mu yor kurusam sol mbubb bu la di jooy magam jëm moo xam ni wóor na la romb kii romb na 40 ans jëm 50 ans ndegam sax romb ko di jooy ay rongoñam di wadd moom réew ngeen yaakaar ne ku tëdd di nelaw di lekk say ginaar di dawal say kat-kat dafa ne jàmm xew na fa yaa ngi nax sa bopp jàmm musuma xew oh, bokk yi ñoo ngi jéggalu de xam nga do maa ngi ñaan ngeen jéggal ma si barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, li ma waroon a tàmbalee xam nga ma man sama xol sama xol dafa dafa jeex quoi moo tax bi ma waroon tàmbalee tàmbalee wu fa Euh, mbokki jullit yi mbokki senegal ñoo ngi jéglu jéglu yu metti di leen jaal Serigne atu Diagne yéen ñëpp ñoo ngi leen di jaal Serigne atu Diagne di woon suñ mbokkum jullit di woon suñ mbokkum taalibe ku am détermination koo xam li mu doon def da koo bëggoon xam nga li may wax rek nit ki li muy def bu ko bëggee rek day feeñ ci day feeñ ci doxinam sax Atou Diagne li mu doon def da koo bëggoon xam nga nit dina def dara ba pare nga xam ne kii li muy def bugg ko maanaam da koo mënut a ñàkk def rek waaye xam nga ne bugg ko Atou Diagne nag li mu doon def da koo bëggoon te da cee yàgg te man dama ko xam ndax dem naa boobu ci daara ji ba tay dem naa dem naa foofu ba tay bu benn du ñaare xam naa ko bu baax kon tey ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa mu xare ko ci jannatul firdawsi nun ñii fi desandi mu bàyyi na fi ñu di ko ñaanal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nag euh, yéene jëm amoon de di liggéeyal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba na xam nga euh, yéene moom dafa am solo innamal ahmaalu bi niyati wa innama li kulli imrin ma nawa kon yéene jëm amoon te yàlla na ko suñu borom fay lu fay lu kaay njortam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke alquran jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu nag ndax foofu la ñu waroon a tàmbalee ndax nitu valeur la woon nitu valeur la woon koo xam ne ni fu mos a taxaw incar incarné na yoonu murid incarné na euh, euh, borom xam-xam borom xam-xam nga xam ne intellectuel la hors pair intellectuel boo xam ne ni fu mu taxaw bu làkkee bu làkkee français nga xam ne kii buñ ko joxoon réew mi mu doxal ko yàlla na ko suñu borom fayal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi kon ñoo ngi jéggul rek ñoo ngi dellu si ah, allo what can I do for you So I was sorry for that phone, not remember that one. What is wrong with it? It was on and off. I don't know what's happened. No. I was coming there and you say it's okay. One day, two days, in the morning, still. No, just, just, just wait, just wait, just wait. Let me tell you one thing. jéggalu de mbokk yi mbokk yi wax naa leen ko ba tàyyi liggéey mooy dëgg liggéey mooy dëgg. ndax ndax li tax ngeen xam ne man ku tuuti laa ci sens situation sénégalais yi ndax li tax li ma leen di wax rek li feeg borom xam-xam yee ña ngay ànd ak gouvernement ba maanaam nun ñu dañuy wax ba sonn rek li feeg borom xam-xam yee faru ñëw faru ñëw population ba dara du sotti Sénégal dara dara gouvernement bi du xam ndax ndax li mu nekk dëgg la wala dëgg te nag kenn du ma wax ne ma ñu ngi wax ñu ngi wax ñu wax ci suuf déedéet xam nga gouvernement Macky Sall bi du gouvernement bu ñu waxal ci suuf. da gouvernement la boo xam ne ni da war a def pourtant tax lu tax ñoom bu ñu amee bu ñu amee li leen ñor dañuy génn def ay point de presse wala ay conférence presse wala noo ko mën a tuddee mais lu tax lu tax lu tax mënuñoo woote def def point de xamal gouvernement bi ne ko li ngay def nii ànduñu ci di fekk ay baaloo ngay toj seen i kër loolu du mën a jëmul Sénégal kanam te da na nga ko teg ci suuf léegi léegi na ko teg ci suuf borom moo weesu loolu bu ñu ko defoon. ñoom da ñoom dindi tuuma lay doon ci ñoom donte Macky Sall defu ko sax doon donte Macky sal ñoom xam nañ ne Macky Sall du du du ki kenn ñoom xam nañ loolu xam nañ ne dégluwut kenn dégluwut kenn faalewut kenn ñoom ñoo ko faale ndax lan li tax ñu faale ko mooy lay jóge ca moom di ñëw si ñoom rek waaye faalewu leen de faalewu leen te li te naa joxe firnde li tax ma xam ne faalewu leen mooy que ma ne amul kenn ku fa mën a ba gisab dënn ba mag Sall tëjut sa taalibe ci ci kaso bi te mënoo ci dara kon kon boo kon boo ne boo ne faale na la yow yaa ko faale ndax lu tax mooy lam yor lam yor ci nga bëgg waaye xam nga ne faalewul bu la faale woon kay xanaa di nga ko sa ca ca ca ci sa taali dina la si ci sa taalibe boobu te mën naa am na taalibe yoo xam ne nii njuumte moo leen fa yóbbu xam nga ka nga xam ndëng ndëngte moo ko yow yóbbu kooku dañ ko faa war a bàyyi mais ki nga xam ne njuumte moo ko fa yóbbu dañ ko faa war a jële parce que justice justice français li may wax rek ni muy doxee boobu baaxut dama ne justice ma ne système français ni muy doxee baaxut système judiciaire français ni muy doxee baaxut baaxut ci population bi baaxut ci ci ci ci prison yi baaxut ci même état bi koy def xamu ko nag xamu ko parce que lu tax mooy ñoom dañoo xamut sax nu ñuy yorem réew waaw sénégalais yi xamuñu nu ñuy yorem réew parce que ni ñu yorem réew doon noonu réew dañ koy da ngay fexe ba ki ki def njuumte ma dem ca kasu ba nga jox ko euh, sa nga jox ko nga jox ko li li li anglais wax give him give him chance to prove himself jox maanaam jox may ko chance mu génn ba xam ndax dina ko defaat wala déet mais am na koo xam ne njuum de moo ko fa yóbbu te ay at ma nga fa te kenn wu ko mais loolu loolu loolu loolu du loolu loolu loolu loolu sëñ bi da nga dégg lu mu def li tax ma li tax itam ma ne leen li tax yi itam ma ne leen euh, euh, Macky Sall ku ko topp yow yaa ko topp waaye moom topp la mooy Karim Wade kenn ku ne xam na ne sëñ Sidi Moutar daf ko bëggoon rahmatulah ali yàlla na ko yàlla yërëm te yeexitu daf bay togg ay ay ndog di ko yóbbul ca kaso kon kooku kon kooku bëggoon na ko te ñaan ko ba tàyyi mu lànk ba mu neex ko mu xëy génn ko sànni ko génn ko réew ma mais kooku kon ku ne ku ne ku ne ku ne faale leen nax da nga leen non ñoom xam nañ ko sax yëpp kenn di leen nax xam nañ ko mais liñ topp liñ ko toppee kay mooy emploi jóge ci ñoom di ñëw ci di ci moom di ñëw ci ñoom loolu dong lañ ko topp mais toppuñ ko njëriñ seen njëriñ toppuñ ko njëriñu askan wi toppuñ ko njëriñu kenn seen njëriñu bopp dong lañ ko topp wallahi li may wax danaa dinaa deeman nangu sama bàmmeel topp wuñ ko dara lu may lay jóge ci lu tuut say jóge ci ñoom ah, tey damaa xaw a yàkkamti sax mais damaa war na ànd ak sëñ sëñ Abib nga xam ne li may wax ni wax na li may wax nii damaa war na moom ndax yéen Sénégal yi dañoo bari tappale fii ne doole ñu bari dañ naan na da ngaa bañ sëñ bi dangaa dem def nekk dinaa mais ku wax dëgg ñu ne da bañ sëñ bi mais loolu li bi mi ngi Sénégal li bi mi ngi Sénégal Sénégal du dem fenn te man li ma li ma jaaxal mooy maanaam boo waxee ñu naan <coughs> sëñ Tuubaa moo jox nguur ku am ku yor nguur siñ Tuubaa moo la ko jox ah nun de loolu jàngunu ko ci alxuraan nun de liñ jàng ci alxuraan ci util mulki man tasaaw wat util mulki man tasaaw bi yeddikal xayri innaka ala kulli shay'in qadirun ñun daal liñ jàng ci alxuraan mooy yàlla mooy joxe nguur te xanaa damaa defe ne sëñ Tuubaa ak fi mu àgg ak yàlla nga xam ne daal la génn yàlla ba yàlla fayee ko li mu ko fayee xanaa du ci fekk ab koo xam ne nii amul yërmande benn yoon ci askanam mu di ko jox nguur nun ci suñ xam-xam bu gàtt jàpp nañ ne Serigne Touba du fekk koo xam ne nii amul as amul yërmaale ciw askanam day lor aw askanam Macky Sall bu mu ñëwee ba léegi day lor aw askanam ma ne tey boo xoolee senegal yi nekk yi dund ci àdduna bi ak Sénégal senegal biir senegal moom ñu fay dund quatre-vingt-quinze pour cent yi ñi ngi ak problème wallahi quatre-vingt-quinze pour cent yi ñi ngi ak problème nga xam ne bu bu élection doon suba boo sàgganee Macky Sall bu bu ko jaaree ci yoon sàcc ko wallahi mën naa bañ a am sax 5 pour cent dama ne la preuve li may wax mooy am na benn booy bu xaw a wér buy buy yëg ci oto yi di si yàlla na Macky Sall wàccal jox euh, xam nañ mi ngi ci internet gis nga li muy xëy di am ci xaalis ndax li muy wax Macky Sall gis nga de bokki dem damaa seetaan benn waaye génn 1000 francs ne ko ma lay neexal daal di yëkkati ne 1000 francs jox nga xam ne oto bu muy ba bis bu mu yëg. bala moo wàcc récupérer ci lu jeex ndegam kookee nga xam ne ñëpp xam nañ ne buggul kër gu rafet buggul oto bu rafet buggul sax yëre yu rafet ndegam moom mooy taxaw di di di di dénoncer lay xaw Sénégal asimaan ñi nga xam ne nii bëgg nañ loolu ma ne bokk yi man sama xol dafa jeex waay sama xol dafa jeex waay bu ko seetaan ki ma ne xam nga li munta xel munta nangu ñu ne foofu forêt classée la forêt classée forêt classée xanaa day am barbar barbar yoo xam ne kenn munta accès ci di fa tabax mais li ma wax ñu noonu Sénégal dum réew parce que foofu bu ñu nee forêt classée la nga xëy xëy rek joxoñ benn àll ne fii forêt classée la te amul lenn lu ko lu ko lu ko déterminé la fii forêt classée fii la tàmbalee fii la yem mais loolu loolu loolu dum réew am réew du doxe noonu am réew lépp loo xam ne nii dañ koy dañ koo dañ koo dañ koo défendre ku ko laal am na am na lu ko a déterminé ne lii kat fii la yem fii la tàmbalee fii la yem nga xam ne ay barbar lañ ci waroon def xam nga fii fii fii nii fii ma nekk nii am na foo xam ne nii mooy ñu kenn mu bay ba mooy ñu kenn mu def fa dara ndax nee nañ ay mine de diamant moo fa nekk te exploité guñ ko ay barbar lañ ko def def ko courant nga xam ne ku laal sax far courant bu jàpp la waaw kay nga xam ne kenn ñu mu ko laal dañ fay bind ne la this is very dangerous don't touch am réew noonu lay doxee mais yow yow am àll boo xam ni nit ñi ñoo ko moom te te ma ne Thiès ak la ko wër bu ñu doon laaj bu ñu doon laaj opinion peuple bi bu ñu bu nit taxawee yor saako ciment bëgg fu ko def wallaahi bu ñu laajoon Sénégal yëpp ñu ne nañ ko wutal fu ko def nañ ko wutal fu ko def kon dëgg dëgg dëgg. sénégalais yi ci seen bopp ñoom ñoo ñoo ñoo gën a ñàkk sens ci li bind ma waxaat ko maanaam yéen est-ce que yéen faire ngeen d'être sénégalais yéen bu ngeen feeree d'être sénégalais ma xam ne xamu leen lu ngeen bëgg parce que ku xam lu mu bëgg da ngay faire d'être sénégalais bu la sénégalais bu la Sénégal amalee njariñ bu la Sénégal amalee njariñ waaw kay bu boobaa war ngaa faire d'être sénégalais mais bu fekkee Sénégal amulul benn njariñ yow lépp lu mu décision yi ma jël exploité population bi la décision yooyu dégg ñu jël ko fa exploité population sénégalais yi xaw te te kilifa kilifa tarixa yi ak borom xam-xam yi ànd ak ñoom nag moo leen gën a may doole ji ñu am xool leen xool leen yow dama ne Sénégal nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent yi ay musulman lañ non déedéet man damaa jàpp ne cinq pour cent yi ñooy quatre-vingt-quinze pour cent yi laa jàpp ne ñooy chrétien parce que lu tax mooy carte d'identité yi ñu def saar saar saar mooy lan saar mooy ak lu mel ne moom genre mooy ak lu mel ne moom kon góor jigéen ak lu mel ne moom lépp am daganal nañ ko Sénégal te ñëpp xam nañ ko te kilifa tere mu ngi ci seen carte d'identité de te yëgaluñ ko seen yaram sax yëgaluñ ko seen yaram yes yes what can I do for you what is what is wrong let me see So how no, can no, you it out? No, no, no. I, I, I can't fix it. This one, I don't have anything for this one. ma ne genre genre kilifa tarixa yooyu nga xam ni ñu seen carte d'identité yooyu la ñuy boole ak kurus dugal ci seen poos te genre lañ ca bind. ma ne <coughs> dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo dee xalaat boo ci biir doo xam yow. Sénégal foo ko mën a foo ko mën a situé foo man a situé Sénégal ak sénégalais foo leen mën a situé loolu laa bëgg ku ma ci mën a dimbali nga dimbali ma ci. foo man a situé Sénégal ak sénégalais yi yow tey fii ñu toll nii ah. yes am am little bit please time you are fine. next next ten minutes. so euh, maanaam maanaam euh, yéen damaa bëggoon ngeen xam ne Sénégalais yi Sénégal yéen dangeen ngeen a amut soutien soutien borom xam-xam yi ak ak ak ak ak euh, ak ak ak kilifa tarixa moo tax ma ne leen wax naa ko bëkk dem bi ma gisee oustaz Matar Sarr di di di waxtaan ci sëriñu daara boobu ñu tëjoon xam nga problème bi citoyen bi citoyen sénégalais yi am moom la moom la sëriñi daara yi am moom la directeur yi société yi am moom la ñëpp am gis nga man li ma jaaxal ci Sénégal <laughs> Sénégal li muy doxee moo doy waar Sénégal Sotrac Sotrac ñëpp xam naa xam naa képp ko gone ndaw yi mën nañoo ñàkk xam Sotrac ndax Sotrac dafa yaan mais ba léegi nii amel nañ leen ay bor xam nga dañuy dafa ño maanaam ña fa ña fa ña fa doon liggéey dañuy toog mu ñu dajale ay seen i 3000 3000 jël bis naan wër naan dañuy dem ci kilifa terexe yi euh, pour ñu fay leen seen i droit te loo leen def mënoon ko dépassé parce que fañ jëm duñ leen ko ko joxeel benn benn benn benn société boo xam ne nii dox na jóg na di dem Karawaan di dem Tiwaawan dem Touba dem Ndiassane dem dem dëkk yëpp ba pare jël ci jël ci satisfaction amagut te du am te du am parce que lu tax fañ jëm ak fi ñu jógee ñoo far fañ jëm ak fi ñu jóge ñoo far kilifa kilifa donc euh, daa euh, ñoom Mokhtar Sarr ñii tamit ñi nga xam ne nii ñoo jéem a défendre daa ma ne booy boo xam ne ci lool yi ci la ñuy wéy ba ilaa yow mu ndax lu tax fañ fañ ñoom itam fa ñuy clamé seen affaire naan am nañ fi ay représentant ak ñoon ak ña ak ak ña leen di teg métit woowu boobu ñoo far man daal li ma mën mooy waxoon naa ko keroog ma li xel mënut a mooy à vingt et unième siècle ñuy jéng ab xale loolu xet mënu koo nag man alxuraan dañ ko war a jàng di ko mokk mokkal waaye nag du ni ñu koy jànge de ni ñu koy jànge loolu àdduna romb na ko civilisation wi romb na ko waxoon naa ko loolu xel mënu koo nangu loolu moom dam gouvernement Sénégal am musuma ànd ak moom te du ma ànd ak moom mukk gouvernement bi dafa nekk waaye li muy def dama cee d'accord ku ku jëng ab ab ab ab ab donga nañ la jàpp tëj la te ay ay quinze jours yooyu sax dafa tuuti te li ma leer mooy quinze jours yooyu li muy tuuti tuuti bu ko ci jóge dootoo jéngu xale mbaa boog boo koy def danga ko nëbbu nëng ndëmm kay parce que li ma leer mooy kaso Sénégal neexul te même bu neexoon sax du du du du am sac du ab sac kilifa guy xëy di ay dongo wër la mu jàgg ñu laajte ñu ne yaa ngi ci kaso ba du sac te nit ki war naa sagal boppam li ma taxoon a jóg ba tey maa ci mooy dama ma ne nañ nañ nañ nañ nañ xoolaat Sénégal ni muy doxee waay Macky Sall amul yërmande ci Sénégal yi Macky Sall amul benn yërmande ci senegal yi te li ma leen wax rek day continuer parce que li tax mooy pouvoir senegal yépp jël na ko def ci poosam ma ne Sénégal assemblée nationale dootu dara. moom Macky Sall seul mooy mooy décider mooy décider mais décision kenn nit est-ce que mën naa yor am réew supprimer le premier ministre su naaw assemblée nationale dootul dara ministère yi kenn ñi mutu wax jël sa responsabilité xam nga man damaa déglu Moustapha Cissé Lo te yàgg naa ko wax léeg-léeg nit weddi ma ne ma ne ma wax mais Moustapha Cissé Lo xam nga moom yàllaa ko nattoon mu dem ci politique séeréer ndax xaalisu politique dafa yomb waaye moom dëkku fa dëkku fa. demoon la ma de waaye parce que lu tax mooy nit ku dëggu dëkkut ci politicien te a ku ma ne noonu noonu la mos a mel ku wuteeg ay bëgg-bëgg mu mu mu opposé la dana la opposé même bu dee ñàkk lépp dana la opposé loolu mooy dëgg mais jamono yow yi tàggoo Ablaye Wade Ablaye Wade moom lu bari waaye waaye dëggu ak dëggu. ak wax ba pare bañ caa dellu gannaaw moo ko fa bàyyi moo ko moo tax delluwaatu ci ñëpp dégg lañ la mu wax nee na Abdoulaye Wade nee na mën naa laa fay li ma li nga ñàkkoon lépp defal la nii daal di mu bañ boo xoolee boo xoolee euh, euh, euh, ci internet bi maanaam am na dëkk bu boo xam ne Macky moom Macky Sall ñoo fa mu sol service bu furi nekk ab garde kooram moo booba bu dee jamono kenn du ànd moom dong moo jëloon risque di ànd ak Macky Sall wallaahi gis nga Macky Sall mii. Macky Sall mii war na war na war na Aliou Badara Cissé war na Mbaye Ndiaye parce que Mbaye Ndiaye tekkeetuñ dara ñoom ñëpp tekkeetuñ dara war na a Cissé Lo bon bennoo bokk bennoo bennoo yàq Sénégal bennoo yàq bu kenn wax ne bokk bennoo bennoo bennoo bokk yaakaar bennoo tas yaakaari senegal bennoo tas yaakaari Sénégal fa jëm fa jëme Sénégal Sénégal baaxul di complot senegal rek xool leen Idrissa Seck Idriss Seck démb damaa dama dama damaa jot benn article boo xam ni dañ ne euh, euh, mu am na euh, ay post yu ko Macky Sall digoon mu jéewu ko jox ndax dama yaakaaroon ne bu ñu àndoon ak moom ca présidentielle ya ñëpp lay àndal ñëw ci gouvernement bi e waaye ndaw est-ce que ay militants moom dañoo mel ne dañoo mel ne xaalis booy jël dugal ci sa poste est-ce que ay militants dañoo mel ne xaalis booy jël dugal ci sa poste mais am na ñoo xam ni bu ba ñu dee ñoom danañ am danañ am ay ay ay condition danañ am seen gis-gis di ko wax di ko doxal ba ba at day tukki munoo fexe ba not ñëpp déedéet loolu mënut a nekk. moo tax ma ne leen woon seenu ànd ñoom ñaar man da xamu fu ñu mujj waaye yaakaar naa ne liy tooy ci na Seck lay jóge parce que Macky Sall mii ni muy politique Macky sàll kay bañ fexee ba ba ba mu génne euh, Karim Wade guddi génn na ko Sénégal te te Ablaye Wade gënoon a qualifié ci politique ci Sénégal. mu xëy def ko loolu non vraiment vraiment vraiment Macky Sall du du ma euh, gone ma nga koy dëkkwaay gone koy ma gone koy dëkkwaay ma nga koy daan kenn du ko daan Sénégal léegi nag suñ dernier yaakaar mooy Sonko suñ dernier yaakaar mooy Sonko Sonko mooy suñ yaakaar di gën a mag nga xam ne bu ñëwee ba pare war Sénégalais yi giñ naa ko ci yàlla ne booy woo Sénégalais yi da xam na nag pare nañ nag pare nañ parce que keneen koo xam ne ëpp moo fi ëpp yaakaar Sonko man gisuma ko mbokk yi man de léeg-léeg damay toog mu jàgg ma tiit ci Sénégal ni muy doxe damay tiit ci Sénégal nu muy doxe parce que lépp loo xam ne nii lu lu lu opposé l'islam la lu opposé l'islam la maanaam dañ danañ ko indi Sénégal te kilifa tarixa yi duñ ci wax borom xam-xam yi duñ ci wax kuñ ci woo logal la nga log-log kuñ ci woo logal la nga log-log kon moom réew réewum corruption la xam nga bu ñu génnee rapportage la ñu passé ne Sénégal mooy premier pays corruption ci west ci euh, West Africa loolu lu dëgg la a gannaaw dafa am ba ci kii tariixa ya nga xam ne boo fa jébbal bi daayira sax boo mënta boo mënta neexale doo gis sëñ mais loolu kay corruption mënu ko weesu corruption ba ci kër tariixa ya loolu kenn du ko mos a gis te nag te nag li ci gën a yéeme dañ ne Jurbel dañ ne Jurbel moo ci Sénégal li muy bari bari corruption Jurbel moo ko ci gën a bari kon mooy déterminer li mu wax ba tey mane ne Sénégal yéen maanaam man sénégalais laa xaw ma kuy toog mu jàgg nga wax ko ma ne am réew bu fekkente ne amalut solution ab population du ci benn fànn nag benn fànn boo xam ni Sénégal amal na leen solution amul yéen amalu leen solution ci seen ci seen santé yéen seen seen plateau médical. yu yu doy waar la yoo xam ne nii ay ay ay mala sax war waruñu leen cee faj ay mala sax waruñu leen waruñu leen faa faj foo xam ne ay ay mbóot ay lépp fa nekk seeni tali kenn mës a gis tali yu nu mel ci kaw suuf amul yéen amu leen i tali sax am na benn euh, dama ko fa moo paree dinaa ko dugal rek waaye na ngeen ko seetaan xam naa si gis ngeen ko sax gisati ngeen ko gis ngeen ko gisati ko gisati ko da ngeen dawaa bëgg ngeen gisaat ko nag maanaam euh, garab goo xam ne nii daa sax ci biir ab raay ab raay ci diggante ñaari pono yi train kii ba màgg nga xam ne peut-être ñaar fukki at ab naan Sénégal a ngi dox tañ naan Sénégal neex na naan Sénégal réewum teraanga la yéen a nax seen bopp bu leen ndox mu neex mu leen a faju ba pare naan senegal Sénégal réewum jàmm mais jàmm kay day am day ànd ak teraanga jàmm day ànd ak teraanga bàyyi leen caaxaan yi bàyyi leen caaxaan yi bu leen nax seen bopp wax lu neex lekk ko moo ko gën yéen nag da ngeen di wax lu neex du du ngeen ko lekk mbokk yi tey sama xol dafa jeex maanaam ni ma ko ni ma ko taftale woon sax mu jëw ma ko toppe noonu ndax lu tax mooy maanaam maanaam yéen a ci ëpp rek joo xam ni dama damaa am lu ma naqari lool bi ma gisee sëñ boobu yor kurusam di jooy ak njaago boobu yar ay mbaamam ba jaay ko def ca lam cay def ñu xëy toj ko te kenn du ko amal solution kenn du ko amal solution li ma waxoon rek laay waxaan xam nga sénégalais daa man a nax boppam sénégalais nax boppam rek la man ndax bu fekkente ne ab société day tëj ñu amee leen ay bor ñu toog mu jàgg ñu ne nañ nañ dajale kenn ku nekk 3000 ñu jël biis dem dem Tivaouane dem Touba dem dem dëkk yee dem dëkk wee te dara lañ fa du jëlee dara duñ ko fa jëlee du tax ñu fay leen dara ñoom kay seen 3 millions yi bu ñu nañ koy dépassé parce que fañ jógee ak fañ jëm ñoo far fañ jógee ak fañ jëm danaa ko waxaat une dama koy waxaat fañ jógee ak fañ jëm ñoo far te mu damaa bëgg képp koo xam da nga maa mën a andil lu lu lu weddi li mu wax ne faruñu nag ma andil rek te andil ma ñetti ñetti rek solution yoo xam ne yu wér la yoo xam ne li ma wax gëm nga ne gëm nga ne lii euh, lii solution am na ci solution amu ci. Sotrac ba mu tëjee léegi ñaar fukki fanweeri at ak lu tegal la te ba léegi ñu ngi leen ameel soti soti soti ba ba mu tëjee léegi kenn xamul kañ am na lu ñu leen euh, société bi euh, balay kii nu mu tuddati waaye bu yàgg bu njëkk ba ba léegi am na lu ñu leen ameen kenn poyu leen te jël nañ ay biir ba tay dem ci kër tarixa yi dara la fa jut kon bu leen nax seen bopp ba bu ëllëgee rek waay la ngeen naroon dajale di ko demay biis ngir yàlla dépassé leen ko te toog ngeen jëm ak fi ñu jóge fi ngeen fi ngeen jóge ñoo du ngeen ci jëlee dara wasalaam